aouzu billahi min asheytaani rajim yi bismillahi rahmaani rahim yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bi nu sante yàlla jullu ci yonantam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ma nekk ñoo leen di jaar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér-gu-yaram xéwal gu yaatu deful àdduna ak alaxira rawatina yéen ñi abonné ci daaru salaam sifaahu daaru salaam sifaabu dana seet bu la seetalee wax la sa sarax wala wax la sa cangaay foo ma dem defeti ko nga dem defeti ko tey nag dañuy andi secret waliyul latif képp ku bëgg ubbeeku wala képp ku bëgg am dara jëlal lii waliyul latif ci wàllu xaalis lay dox waliyul latif waliyul latif nag mooy turu yàlla ñaari turu yàlla la yuñ boole benn bi mooy latif benn bi mooy waliyu muy ñaari tur yàlla yoo xam boo leen boolee dafa lay jox limu xaalis limu mu xaalis boobu nag boo ko dee liggéey ci turu yaa waliyu yaa latif ci carte borom tabaaraka wa taala xaalis dana la yomb ak noo foo ma nekk tur yàlla nag doo ko jàpp ci benn bis wala nga jàpp ko ci weer daal di cay am la nga bëgg tur yàlla da nga koy tërbiyewu man nga ko jàpp lu mat six mois mu door a nangu waaye nag doo liggéey ñaari fan ñett ne lañ ma wax ci turu yàlla gisuma ko nga daal di bàyyi turu yàlla am na ñoo xam dañ koy latif dañ ko liggéey ci ay at sax mu door a nangu waaye bu nangoo rek lépp loo laal mu neex lépp loo laal mu yomb latif bi ngeen gis nii wax na ne moom sëñ Fallou liggéey na ko ci ñaar fukki at mu door ko nangu sëñ Fallou mi nga xam ne moom mooy borom na am mu am liggéey na latif ci ñaar fukki mu door a mu door ko nangul kon latif nag moom nit sikkarul sax lu ko gën ci tur yàlla yi ci ak jàppandal mbir ak ci ñeewante ak ci am dara borom xam bi sax nee nañ doom xamuñu doomu aadama na muy xamee tur yàlla bi ñuy wax latif ba pare di sonn borom xam bari wax nañ loolu nee nañ ñoom xamuñu nan lay doomu aadama di xamee turu yàlla bi ñuy wax latif ba pare di sonn ndax ba doon nangu leen lépp ñëw na waaye nag da nga ko tërbiwu mën koo liggéeyaat moo door a nangu mën nga ko liggéey ñetti weer sax mu nangu mën nga ko liggéey weer sax mu nangu waaye li ci ah, njëriñ li daal mooy na nga sell yow mi ko liggéey na nga jub moo ci gën a am important kon da ngay def bisimilah rahmaani rahiim boo koy ubbi nag wird baax na bu dee wir yi may bëgg a joxe da ngay def ah, astaghfirullah juróom-ñaari yoon def salaatu ala nabi boo man juróom-ñaari yoon boo te pare nga def nag yaa wali yu yaa latif yaa wali yu yaa latif yaa wali yaa ngi koy def ci cent soixante quinze cent soixante quinze mooy téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom gis ngeen ko nii moom laa bind nii cent soixante quinze moom nga koy def cent quinze yooyu mooy jàpp lii ñuy wax fidda fidda bi mooy xaalis gis nga ko faa bi quatre wala daa bi quatre dix alkubeer bi cinq moo lay jox cent soixante quinze kon muy lu am solo ci wàll woo xam ne ni wu man di doon moom ci wàllu am-am boo la neexee na nga déglu ñaari anam yi bu la neexee nga koy def wël yaa wël yu natif cent soixante quinze heure boo julee suba julli suba ba pare ak boo julee gee ba pare nga def ko cent soixante quinze bi ci gën a baax nag moom te gën cee dox te gën cee neex ginnaaw boo jullee julli farata bu nekk nga def yaa wël yu natif cent soixante quinze nii tamit nga koy liggéey boo bëggee mu gaaw a nangu da ngay def cinq muy juróom nga jiital teg ci juróom-ñaar fukk indiwaat cent ndax da ngay xëcc wird bi la booy xëcc tamit nag la gën a ndaw moom ngay njëkkee teg ci la gën a diggu doomu tegaat ci la gën a mag gën mag gën mag kon boo koy liggéey da ngay jiital cinq teg ci soixante dix teg ci cent muy cent soixante quinze muy yaa waliyu yaa latif lii mooy tur yàlla woo gis nga waaw la laam gi trente yaa gi dix mu jox la quarante six nga def nga def laam gi trente taa bi neuf yaa gi dix faa bi quatre muy cent vingt neuf cent vingt neuf ak quarante six boo ko boolee daf la jox cent soixante quinze mu yaawulu yàlla bi yaa bi nag yaawu ni daal moom ndax booy woo yàlla da koy wooy te kàttanam gëm mën na amee nam nam nam ab dayoom toll ak nam gën a màggee ndax nit sa kilifa doo koy woo naa ko ay eh eh diw waaye da naa ko yow diw yow diw moo tax yaa gi di yaawu ni daal moo tax ñu naa yaa latif ak yaa wali waaye latif rek mooy turi bi tamit waa wali bi rek mooy turi waaye yaa gi moom yaawu ni daal kon ñëw leen ziar di leen ñaanal jàmm ak gudd fan ak wér di ko sàkku ci rawatina nag gi ñi abonné ci Daaru Salaam si baaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu